مني mbaɗigol tubabol kafumeye human trafficking kule muya lonko aɓe kerenne ika dindigol ni musol le bondi ke samba bantala banko kan surtout ñing ara bankol kam min kam tako dubai libanon anin kata hani na gambia jam fanga aɓe aɓe kerin janne jama jama dindigol ni musol ika walla yolendi ke samba bantala banko kan ke jikindi koyɓe dow walla dilila je andi ni futata je i balol ika walla waafi ñing mu kuleti me ya lonko luwa man soŋa la sango sam musol nin dindiŋol i ka wuli wuli jamala yo lendi andun gambiya be ñiŋ bankol kono le i ka yo lendiro ke mennu to wo kamma la mansakunda ye bundaal londi ka fo ma ye nati pour ka ñiŋ kujawo ñiŋ kele ka bayi andu wo nati abe ministry of justice le koto wo le mun na kiiti bunda bala agency for the past two sañi fula koma nga kisikisirole kulle fintindi melyalon ko itelle suntañi yolondirola men kita ni musu foro musolla yolondiroti ke bondi na gambia banko kan katun sainten fan e eh, sikisiro men ɓe keeri ay moɗol mutala meleyalon ko iɓe nakkite bunto sainte eɓe kiitol momonde mutata si naati loi ñaateliŋol mbaɗiŋol wot alal hakkiloto ñummol to men yalon koy ka faale ko mbaal diŋol sambala bantala banko kam pour kadi ma koye dow koto ala baraka li tubaab yi di wax human trafficking moo di jël nit ñi di leen rawale rawatina jigéen yi ak ndaw yi dafa nekkalu am la surtout si réewi Gambia at bu ne ay junne junne jigéen lañ dee rawale di leen yóbbu si dikki araab yi ñoo wax Qatar Dubai Libanon ak Egypte suñ leen yóbboo dañ leen dee dig ne dañ leen naa jox ay liggéey waaye yëpp ay naxaati la suñ demee ba egga si lañ dee nemeeku na li yëpp ay naxaate la di jëfoo seen yaram yi di leen jaay yeneen ak yeneen di si xew te léegi-léegi duñ leen fay dara si loolu si kaw loolu nguuri Gambia taxawal na bunta bu ñoo wan natib te natib boobu mu ngi nekk si ron Ministry of Justice di bunta bu seetoo wàllu àtte si réewi Gambia pour gis na ñuy jëfoo loolu lu waa teg na lu di seen kaw suñ liggéeykaay bi ci ñaari at ci gannaaw amoon na ñuñ jàppoon ci ñi nga xam ne bokkoon nañ ci ñiy rawale nit yi di leen yóbbu bitim réew ci lu àndut ak yoon ci kaw loolu am na ñoo xam ne yoon teg na leen loxo ba tax na ñu ngi leen yóbbu ci néegi aatekaay ci nekk ci biir réewi Gambia ay sambaaboo yooyu dañ leen tuumal ne bokk nañ ci ñiy rawale nit yi di leen yóbbu bitim réew dinañ jël ay matukaay yu mut pour gis ne ñuy def yu bon yooyu noonu yoon teg na lu diis seen kaw. luwaa buñ teg pour muy aar xale yi ñu ko wax ci Lands Act moom tam daxana poson jëf yi bon yi ni rawale bu ñoo wane surtout si jigéen yee xale yi lu siiw la si biir àdduna bi te Gambia si la bokk. dina am nag yeneen saay ñuy ñëw si yéen di leen wax ne dañ bëgg a dimbale seen xale yi jigéen yi pour ñu am liggéey waaye ngeen bàyyi seen xel si loolu bu baax. que